Balla Gaye maa ngi koy lancé défi ne ko na jàpp soxnaam si jig na ko baax na ci moom seen seen seen seen tabian lépp dafa ànd jërë ngeen jëf ginnaaw bi leen nuyoo ziyaar leen te ñu toog ak Serigne Assane Khalilou Rahman ñu war a waxtaanee lu bëree bari ci mbirum actualité rawatina Balla Gaye 2 ak jabaram ji xamante ni ñu ngi koy tuumaal mbirum euh, foowee boppam maanaam euh, di joxe boppam ay góor ñu koy tëddee dinañ ci waxtaan ak moom euh, dinañ waxtaan ci mbiru ki ñu wax Sonko. Euh, coow li fi mu toll diggante ak Mame Mbaye Niang dinañ waxtaanee actualité bu yaato yaatu ñu bàyyi ko mu nuyoo euh, sëñ Abdourahmane maa ngi lay ziar xarit Rahman. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala maa ngi nuyu mboolem mbokki Sénégal ak ñu nekk bitim réew ñëpp di ñaan réew mi ak bépp réewu jullit su borom yàlla fu fa jàmm ci teddaange yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Euh, tey ñu waxtaan ci téléphone nga am loo ñu wax tuuti ci ki ñu wax benn waay bi faral di génn di tuumaal ki ñuy wax Boury Bathily nekk jabar ci Balla Gaye 2 Euh, dinañ waxtaan ci ay mbiram aussi dinañ waxtaan ci mbiru Ousmane Sonko diggante ball Gaye 2 ak jabaram wax ju ñaaw ji ciy jub. waaw diggante boobu balaa ma caa dugg am naa lu bëgg ñaan tuuti uh-huh. mooy am na loo xam ni gis naa ko mu jëm ci mbiru Moustapha Cissé Lo. Moustapha Cissé Lo Moustapha Cissé Lo uh-huh. xam ne ni mu ngi dund ay jafe-jafe yoo xam ni ci wàllu wér gu yaram. képp koo xam ne ay mbokkam lañ nag maa ngi wax nañ ci jukk ndax dafa bari moom ñu koy xeex ci wàllu baatin ndax lu ñu wax naan ay règlement de compte loolu la bari le daf koo bari le léegi nag yooyu ñu daan jëfandikoo ci moom moo tàmbalee feeñ ci moom waaye nag bu suñ ci jógee ci kàttanu yàlla ak mbaaxam dana saafaraw. moom Moustapha Cissé Lo moom Moustapha Cissé Lo ci boppam. kon maanaam gëj a génn gim gëj a génn nekkut noonu rek neen. déedéet Moustapha Cissé Lo mu toog kenn dégg ko ci ak li ci réew mi yëpp loolu kay xam nga ne jàmm xewul. jàmm xewul déedéet jàmm xewul xam ne mu ngi dund ci ay difficultés yoo xam ne mbokkam ñi xam ne ñoo ngi may dégg xam nañ ci dara te lii nag ba ma ko xamee yàgg na lool ndax yàlla da ko defoon mu am fit am barke ba noppi sañ a wax. sañ a wax waaw ba noppi nag mën a xeex. waaw waaw waaw ñeme dëgg wóolu boppam it waaw loolu nag ci loolu la daan sukkandiku ba moo tax ku ko mos a wokk mu xuri la waaye jëflante naa ak ñoo xam ne moom. dal nañ ci kawam bu baax a baax a baax actuellement fi mu toll nii mi ngi koy yëg bu baax a baax bu rëcc dañuy wax la war naan rëcc dana fekk jëf wii waaye su doon démb la ku ko woo ci xeex di wuyu. kon tey jii daal looy wax ay bokkam mooy eh, il est temps de jóg pour soutenir seen papa. waaw ndax nit bu fekkee dafa yàlla dala dénk wajur mu góorgóorlu ba réew mi xam ko mu góorgóorlu ci itte ñëpp xam ko ci am fit xam ko ci am jom xam ko ci doon jàmbaar taxawu la it bàyyi la ay bien li nga war def ci sa kéemtalaay kàttan yow ñëw taxawu loola taxawu ko ba noppi ngir lim fi suuxat ak lim fi jëmbat mën a doon loo xam ne lu wéy lay doon ta ta sax loolu lañ gis ci mbiram kon nag képp koo xam ne xaritam nga wala nga doon ab mbokkam wala nga doon ab soppeem wala nga doon ab jegeñaaleem nañ taxaw ci Moustapha Cissé Lo buñ ko deful rek lii di xew nii ci kanam moom moom dana ci am mbetteel bu baax a baax a baax. maanaam day fekk jëf dana fekk jëf wees bu yàgg yàgg yàgg. waaye yéen ñi nekk ay mbokkam euh, li ñuy wax rek mooy ngeen taxaw seen papa te ngeen xam ne seen papa comme sëñ bi li ko waxee mu ci ay difficultés yoo xam te ngeen kenn mënu ko wax kenn euh, kon dañuy euh, tëj entre parenthèse boobu nu ñëw li xew ci réew mi Boury Bathily li dañuy gis fan yëpp ay waay di ko laayfal di ko tuumaal mbirum fooye boppam maanaam ci ay góor yu nekk ay xariti jëkkëram gis nga suñ journaliste Sénégal daa bari ñu soof daa bari ñu xamadi daa bari ñu baadoole it danaa tujjal ñetti nit muy kii di Sokono stress te Sénégal dañu bëgg ko waye di day mel ni ñoom fi mu toll nii boo boo boo boo dee doon ko matadi doon koo xam ne yow am amoo ci dara ba noppi nag ñàkk personnalité ñoom ci lañ la gën a bëgg booy laal fi booy laal fi yow la ñu gën a siifar yow la ñu gën a siifar dañu bëgg ko doyadi te ku mel ni Sokono stress xam nga ni lii mu tuumaal soxna si jàmbur ñaaw na ba ci kanamu yàlla ku ni Adamo. mais Adamo moom nee na moom bàyyi na saaga. moo mel ni Mollah Morgun Adamo moom li ma ko wax bi paase rek. ndax nit mënoo doon ni man ab tijaan la Cheikh Ahmad Tidiane Yesir radiyallahu taala anhu mooy sama sëriñ moom laa bëgg te doo ko roy ci dara. mais moom gëj na saaga parce que moom nee na moom gën na ci ñàkk fayda yooyu satal na ci boppam ko koy wax dara sax day wax ne moom bàyyi naa saaga du ma la tontu. déedéet moom mënut bàyyi saaga. mën mhm. mënuñu koo bàyyi. waaye su ko noo stress lii mu def nii xam na ni waaye nag maa ngay maa maa ngi koy lance défini du ko jural njariñ déedéet faw dana gis loo xam ne mérito na comme euh, li def ci réew mi ak ni mu mel ñu ko tuumaal soxnaam ne moom ay xaritam dañ koy tëddee. li ñu wax du dëgg loolu du dëgg dëgg ndax Boury Bathily lii boo gisee xam ne ab sëykat la ñoom ko topp seenam askan xam ne jigéen ñu mën a sëy la ñuy doon. maa ngi ko ci waaw bi ci topp it Balla maa ngi koy lancé défi ne ko na jàpp soxnaam si jig na ko. baax na ci moom. seen seen seen seen tabixa lépp dafa ànd. dafa ànd su ko defee waxi nit ñi commentaire rek naa buum tax buum ci jàpp dara su ko defee na ko jàpp te jàppale ko xam ne léegi doon doonatul soxnaam sax waaye rakkam la ndax fi mu xas ñoo nekk famille ba noppi waaw maa ngi ñaan suñu borom gën a dëgëral seen diggante seytaane ba ci am benn wàll ndax Sénégal war na toll foo xamante ni maanaam li li ñuy profité wala li ñuy njëkkante mooy maanaam ñaawteef gis jabaru jàmbur bu tayee ñu ne faatu Lawbe la bu subaa ñu ne diw la Sénégal ndax war na toolu foofu. déedéet Sénégal dëkk la boo xam ne culture bi amoon moo dañ leen xamoon ci mbaax ak yiw ak mën a rafetal ak suturaal doomu aadama waaye bi demee ba ñu daq xaw yi suturaal doomu aadama ñoom la nit ñi gën a bëgg xam nga foofu li ma ci joxe exemple mooy ku mel ni Adamo bi mu ko tàmbalee di ko def te daan gis compte bi di yéeg waaye gis nañ fi mujj xëy rek di daanu di daanu di waye di di dugg ci loo xam ne kenn xamul lu mu doon jëf ju ñaaw daal moom amul kenn ci jaam yàlla koo xam yaa ngi sax ci ref ba noppi mu mën laa jëkk loolu mënta nekk waaw man amila saalihan fali nafsihi wa man asaa fa aleyha moom buur la boo xam ni buur bu tedd la fi ne inna yàlla sax dafa bëgg koo xam ne day day rafetal waaw waaye nag nekk fi di ñaawal di salteel di tuumal nit ñi di leen sosal naanga ndax yow koo xam ne yow nekkoo ci réew mi noo fi nekkee nekk fi naanga bu ko defee it mboolem ñi nga xam ne nekk ci réew mi it tey ànd ak nit mu ko am tur maa ngi ci soññ mboolem ñi am tur nañu xool seen entourage ñuy àndal ab fenkat deesuta ànd ak moom ab soskat deetu ànd ak moom ab siiwalkat yi deesu ànd ak moom su ko yii nii képp koo xam ne dem nga ba saytu ko ci moom ndax Sëñ Tuubaa Sëñ Abdul laa daa wax ne nee na asgor waxi renam ak jëfi déwénam bu dëppooy boo jàpp jàppal askorongo waaw waaye nag boo jëfee ni gis nga mu wax la lii bu subaam def lee xamal ni kii du waaja teel koo bàyyi teel koo bàyyi mais dañoo gis euh, temps yee passé nga am am njëriñ mhm. gis dafa gën a yokk ci mbirum Ousmane Sonko mhm. Ousmane Sonko dafa mel ne femme beneen coow toppaan ci kawam mhm. mu nekk diggante ak Mame Mbaye ñaa yaa waxoon lii lii am na lii amul ñu gis ne askan bi dañuy gën a jóg di topp Ousmane Sonko mu jaaxal ñu baree bëri waa Ousmane Sonko moom maa wax fii ne bu duggoon ci baar bi nit ñi wéy di ko topp. ci baar bi ci baar bi. buñ génne woon téeméeri vidéo ak téeméeri photo du tee nit ñi bëgg ko du tee nit ñi gëm ko du tee nit ñi topp ko ndax Sénégal moom ab président daara bi kenn du ko tànn ci ab sëñ daara wala ab imam ku mën a yor réew mi la gis nañ ni jub na mën naa yor réew mi ndaw la nagu naa liggéey nit ñi am nañ ci moom yaakaar nit ñi dëgmal ko lii rek moo tax patriote yi ñëpp jug ne Ousmane Sonko la te nag Sonko la nag moom fi mu ne nii bi la ma tax nga ne Sonko la lan nga gis sa gis-gis. yàllaa ko tàccu te des naa fecc sax gis naa ko barki dimb rek bi nga xamante ni waaye boo ko xoolee ci jeune talent bi mu doon mu doon mu doon président bu jantal lay doon bi ci topp it ni ma ko waxee muy réew mi ñu nekk réew réew diine la ndax 100 pour cent bi li ëpp ci ñi fi nekk musulman bi mu ci doole ñaari bis topp it mu doon koo xam ni boo gisee ak colom sax li ci ëpp mooy ñaw yi. af sénégalais di ñaw moom la ëpp li muy pré pré pré yi ñaw ci dëkk bi. maanaam local local. Mm-hmm. waaw moom la ëpp lu muy sol. kon kooku dañuy gis ni dàll yit moom la ëpp lu muy sol bi ci topp yit communication am ci ci ci li ni mën a dugg ci bopp nit ñi mm-hmm. ni mu koy defee nga ne bu keneen di communiquer yow mën ngay jëli di kii ba mën a comprendre waaye moom fi mu toll dala koy jox rek mu dugg sa bopp nga xam ne nag lii xekk ma boo xam ni. suñu borom moo ko joxe waaye suñu borom doo ko ci sédd loo xam ne saa boo waxee nañuy dégg ko boo waxee nañuy dégg ko nit ñi nag bëgg nañ ko bëgg goo xam ne képp ku dal ci moom na la wóorit ci Sénégal nga dal fi ne nit ñi gën a respecté ci nit ñi bu xëyoon suba wax suy naa Sonko lu ñaaw nit ñi buñ xëyee suba wax ko lu ñaaw. ak ku mu kay dañ naan suy naa Ousmane Sonko nga wax lu baax fi tasu gaa yi ne la waaw jaajëf defoo ko boo ne nii gaa yi jàdd te yor na gone yoo xam ni gone yi mën nañoo wax muy patriote yu góor yi ak yu jigéen man nañoo wax saf nañ làmmeñ man xaw ma discours yi xaw ma discours yi dañ koy tari waaye yàlla tijji na leen ci communication ba nga xam ne moom. mais saagante nan leen di saaga ñuy fay wala bëri na leen man kay sax tamaat leen lu ma gën a yéem. Cheikh Bara Ndiaye borom def gis. man daa mel ni keroog seen marché bii ci Kër Massar bi ma gisee mu jàppante ak Ousmane Sonko nii ñu téewante ay loxo daa mel ni def gis da koo jox Ousmane Sonko de ndax Ousmane damaa gis képp ko def rek boo xëyee koy gis. mboolem ñi mës a dal ci kawam buñ xëy yàlla toroxal na leen tàmbaleel ci juge yi tàmbaleel ci avocat yi tàmbaleel ci ñi nga xamante ni mooy ñi xew ay Mollah gën gis nañ ko barki démb rek Aïssatou Diop Fall nga ni saa bu nu laalee gis ñu ngi wàcc rek dañu daal di areeraat moo tax tey nga dégg tey ku mel ne Aïssatou Diop Fall tey moo wax tey lii ñëpp ku ku ko laal rek def gis la def gis la waaw xam naa nag moom xam naa ñàkkul waxtaan gi waxtaan ak Cheikh Bara Ndiaye ñàkkul ni Cheikh Bara Ndiaye moom moom def gis gi daa am lu mu jox ko Sonko wala mu am lu mu ko ci jox waaye comme gis naa ne ñoom ñaar ñu am rapport moom xam naa ne seen ànd moom mbiri ngi ci. Mhm. Euh, ci kaw loolu dañuy continuer ak yow parce que temps bi xoj nañu. Mhm. ñu waxtaan ak yow ci mbirum xam parce que Khalilou Rahman gars yi ni lay sonal ci appel yi mhm. euh, ñu bëree bëri di woote. di wax seen soxla. sa diggante parce que ñu bëri na leen Khalilou Rahman euh, bokk na ci Sénégal ñu dàq seet parce que kenn masut la poñe na la jox ma sama xaalis. déedéet loolu moom du am mukk ci àdduna. seet moom maa ko dàq ci réew mi seet ndax li ma ciy def moom kiimtaan kiimtaan la moom man sax xam naa ne lii moom may suñu borom la waaye du du gëstu du jàng. déedéet déedéet déedéet am amaa bi ni xamante ka fa xadis yàlla daa wax ne alayhi salaatu wasalaam ne ko xiiwal yi ma defal de ko waxtaanee lii nag daa bokk ci xiiwal yi nga xam te nixmatullaahi yi nga xam ne suñu borom daf moo ko defal. mën nañoo xam lan parce que seet bu efficace bi ngay def. waaw man ñeent suuf wala téere waa Sonko yi yii daal lay seetee moom nga xam te benn bu ci ne képp ku ma ci téye la ba bàyyi da xam ne ñi la daan téyel ak kii la téyel wóote nañ waaw te bu ma kenn woo di seetlu naan ma nangam lay seet woo ma jox ma sa tur sa sant sa tur yaay santam ñaataat nga am fan ngay wootee ma wax leen say mbir waaw mais gis ñu bëree bëri wax mbirum noob mm. ba ci ñu nekk ci euh, Europe bi Asie fu ne mm. di woote naa dañuy nooblu mm-hmm. ñu bëree bari dañuy wax ne xalil rahman lan soxla lan mooy seen diggante ak ñoom ñu nekk Europe beeg diaspora man nopp moom bi ma ci gën a sawar mooy ki ne kenn mënu koo nopp. ki ne kenn mënu koo koo xam ne ji ndaw soo xam ne daa taxaw ne man kenn mënu maa nopp ndax dama am gàllaaj mm-hmm. wala nit ñëw ne mu diw dee dem naa ci ku nekk ñaan naa kooku laa gën a sawar mm-hmm. su ma ko jàppee ba bàyyi ko mm-hmm. foo ko jëmee foofee lay jëm. foo ko jëmee. même koo xamante ne sax da nga am problème ak sa jabar sa jabar lànk du la sëyal. dama am benn dëkk boo ma mosaan dem. benn mère bu ñëw ci man ne man daal sama doom soxna do soxnaam daa jëkki dem waaye ku ne dem na fa ci kilifa ñaan ko mu lànk ma ne ko ah, baax na ma wàcc midi boobu dama fay jàngale alxuraan dem ci sama kër fi ma tëddee tisbaar ba nopp daal di julli def samay listixaar yooyu ne ko man su ma leen ne ci duggee yàlla na def ndam tàkkusaan jot mère bi dikkaat ci daan ma ne ko man de bu ci duggee yàlla def ci ndam. billahi wallahi wa yàlla dogal mère bi ah sëñ bi ne man ko nag ñaar mooy am da ngay bëgg ñu def boo bëggul ñu bàyyi. waaye man aw ma jot ne fii di wax nangam gëm ngaa gëmul biñ tënkee ci loolu yàlla mi dara tëwul bi ma ci ñaanee benn téere sax laa ko jot a jox la ma doon sikkar aggul ndaw sax ne bàyyam ci foofu dama bëgg ji bi sama kër boroom kër yàlla xam na ko barke alquran te téere bi yàlla bi loolu sëriñ bi waxoon kitaabun bihi minan kitaabun bihi narju minallaahi rahmatan wa nanju bihi dunyaa wa uxraa minal bi man xawma lu gën a foor ci ab moo tax may wàcc alquran di ko seedalee sama borom nii ma ko waxee ni nii la demee te ku ma ci jëflanteel ñu waxtaan ci kàddu ba tënk soo doxee jëm ci ma dox jëm ci xar da nga ci am résultat. macha allah waaw. mais dañuy ñu nekk mhm. ñu bëree bëri mbirum kayit. mel ni euh, sëriñ ji fi nekkoon li bëri bëri. Mhm. da nga nekk wax xam ne da nga calme. Mhm. mais teewut yaa ngi jëflante ak gars yi jëflante bu rafet. waaw bokk na ci tax ma génn sax dañ may faral di wax naan gars yi ñuy génn di jëflante diw daa lekk sama xaalis daa nangam sax ma ne waaw ñi yor dëgg léegi bu ñu waxul bàyyi gone ñi yoru dëgg ne fii di coow rek jëmi ba kañ ndeem ñi yoru dëgg yoruñu lu wér gëstuwuñu sàkkuñu xam-xam dun ay jaamu ko te yàlla liy def mooy am xaalis wër nekk ci barabu siw yi di wëri taxawaalu rek te ijaaba dee su ko amee noonu yàlla it képp ku muy jox yëfam soo ko fooyee da koy nangu waaw te ismullahi ansam yi damay faral di wax ni képp ku ciy fëgg di ci fëgg di ci fëgg ba barke ñu wuyis la wilaay ñëw nga xaw a tuuti asbaatin sax laay wax xaw ci am as tuut barke daal lay ganesi soo ko tàmbalee foowee su ko defee paaka buñ lay jox ak mbar boo ko bokk fooyee dañuy nangu paaka bàyyi la ak mbar te mbar mënta daggub dara nii la demee. ñu gis ne ay jamono waxoon nga fi ne képp ku fi am sa doom boo xam tënal la. Mhm. buy dox guddi wala muy cagatu wala lu mën di doon. Mhm. su woowee dina ko bàyyi ci tux ak amul benn sikk loolee moom suñu borom maa ngi ko ci sant bu baax ndax képp koo xam ne waxtaan nañ ci loolu ba tënk ko moo xam da nga ma koy indil wala day déplacé wu ki nga xam ne moo moo bëgg ku ko defal loolu ci njabootam mooy ñëw su mu ëndee ànd xale bi baax na su ànd moom dama naan ko jëlee lii nga dugg ci barab sàngam sang ko ko soo demee lii na ko def nii ak nii ak nii insha allahu yàlla dana ko jubal waaw loolu moom am na ci fan yi rek kun ma jox koo xam ni jubadi googu la nekkee woon jubadi ji taxawaalu léeg-léeg sax daanantu ay fan te xale bi góor dem na ba tàmbali mesure kenn du ko gis yàlla dogal bi ko wajur ma ñeew ko waxtaan ak moom ba noppi moom bi ma xat noppee ci xale bi bi ma ko waxee dama lay yóbbu ci ab daara dee daf ma ne nekk ak yow moo moo ma gënal nga dañ ko noonu laa ko mujjee bàyyee ko ci man mu ngi dox yenn yitte yi ma jox ko salaatu ala nabi mu di ko liggéey sant ko naka fonk sa yu ñaari wajur te saa boo ma nammee nga ñëw ñuy saafante di seerante wajur yi sant nañ ci bu baax a baax a baax a baax waaw ah, kay taxawaay bi rafet na mhm. mais yow dañuy wax ne da def ay càngat yoo xam ne dafay maye alal maanaam mhm. day maye xaalis day tijji mhm. waaw loolu moom képp koo xam ne waxtaan naa ci yow jox la ko soo ci gisul loolu ñëw laajaat ma sa xaalis. waxtaan ak ci ñu waxtaan nga ne ma dama koo bëgg. man la defal nàngam nga def ko ba noppi te gisoo ko. bëgg lan bëgg bëgg ubbiku. bëgg wërsëg. Uh-huh. bëgg xéewal. bëgg xaalis yomb la. loola moom da ngay dikk ci man. sama njaq yii bu fekkee ci réew mi nga ne dangay ñëw ma jox la ko nga sangu wala ma nga du yóbbu sa kër bu fekkee da ngaa nekk bitim réew am na bitil yi ñu koy kaste fexe ba nga mën caa jot foo nekk ci àdduna bi rek mën na faa àgg waaye ci kàttanu yàlla mbaaxam ku gis jigéen di wan lor da nga xam ne daa wan lor waaye ku gis ku yàlla ne ci moom xam ne yàllaa ngi ci waaye ku laal yëfit xam ne daraa nga ci da nga xam ne man mi am na lu ma laal waaw ndax suuf si fépp tolloo woon waaye ci jali lañ sutantee nag cangaay wute na de waaw yor naa ci ay lu mel ay cangaay yor ci ay jaaro yor ci ay seen yor ci jigéen yi def ci lam yor ci téere yi def ci paset yor ci yu dul jeex nga xam ne képp koo xam daal ñëw nga waxtaan ak man nee ma sëñ man lii moo doon sama yitte li sama baay nag daan wax daan wax yoruma luy maye moom yoruma luy maye waaw da lay boo ñëwee mun la boo sànnee ma sànni te incha allahu taala ku noppi ci loolu mu mu jaral la soo ñëwee dan fa nga nekk danaa la fa jëlee yóbbu la fa gën a sori rus na maa jëflanteeg nit muy dellu ginnaaw. ñu nekk Europe soxla ay kayit mën noo am kayit. Mhm. soxla ñi bëgg dem Europe ñu nekk Europe yàgg fa lool seen i parents nam leen seen famille nam leen amuñu ay kayit. Mhm. kenn rek laa ci dul mooy koo xam ni dafa am ay tuur yoo xam dañ koy bañ a rendi wala tabi xam bañu daa bañ a rendi waaye ku dul kooku moom danaa la jënduloo ab gàtt rendi ko laaj la ab xaalis su ma ci toogee balaa yàgg dara incha allahu taala da nga ci gis résultat. doo ko jox jour la. déedéet du ko jox jour loolu mbokk ma naan ñetti fan laay joxe noppalan déedéet du ma la jox jour waaye danaa ci toog ba nga ne ma sëñ bi sant naa ma doo ko bàyyi waaw te incha allahu taala ku ma ci jëflanteel da xam ne moom lu wér am na. waaw fi mu toll léegi nit ñi nag dañoo jaaxle ba sonn ndax naxekat yéeg ñuy tappaleeg ñii nangam nga dem fii dem fee ñu dem ba da nga jàpp sax dëgg amatul te dëgg moom fii ak ñaa ngi ci kaw suuf dëgg di am loolu yàlla ni la ko suñu borom digalee woon illa lazina amanu wa amilu salihaati wa tawaasaw bil xaqi wa tawaasaw bi sabri macha allah waaw kay mu nekk lu am solo dana gis jigéen ñu bëree bëri pour ñu sëy pour ñu am jëkkër daf leen di jafe danga nga gis ku bëgg di taxaw fi mu war a taxaw pour am jëkkër mais kenn du ñëw lan problème ba ci góor ñi sax fi ne am na lu gën a yéeme loolu ñii dañoo toog gisuñu kuñ takk waaye ñii dañ leen takk ba noppi di leen sàggane ñii dañ leen takk ba noppi di leen sàggane moo tax ab sëy yi gannaaw buñ ko fasee ba noppi dañ koy ñàkk mag ñi daan nañ ñaanlu ci nit mook mook dooma ci yem bu mën mësaan am doom man li ma xamoon ci bu njëkk bu xale bu juddoo bu ñu ko tudd dañuy yëkkati képp kuñ am ci moom yaakaar rek yëkk jox la bi ko kayit ne la bindal ci ñaanal ci dara mm-hmm. gis nga nit bu juddoo ci pénc ñu xool ko xam ne kii ñëpp am ci moom yaakaar ku ne war naa bind jox soo ko defee nag bu nee bañ joxe ko war nañoo mën a ñàkk diggante boobu war nañ ko mën a ñàkk waaye léegi jàkkee moom daanaka buñ ne buñ may nañ diw ak diw buñ xutbaa rek ku ne jël mbuusu beñe daal di génn mag ñi daan nañ fa nekk di ñaan di ñaan ñëw ci waral ba gannaaw timis di ñaan bët guddi ga sori ñu doo ko yebal ndaw si musée waaye loolu lépp amatul bu ndaw si di wàcc it yu surtout yaa si ñu daan jàng ci buntu bi dugg ñu bari jàngatuñ ko léegi jàpp gi sax léeg-léeg gis ko xam ne a dugg daan jàpp yëpp dara te loolu yëpp ci nit ñi bay gën bay li ñu war a nekk loolu nag bu àndeek nag doo ñaandoo du ànd ak duñ sàmm diggante bi bu àndeek ak duñ la ñaanal lu jubali sa borom kër du ànd ak duñ la ñaanal loo xamante ni kenn du mën a yàq sa diggante borom kër loolu pour mu pour pour mu pour sëy boobu mën a sax loo waral nga a dégg ana Cheikh Yérim Seck sëy yàggul dara ñu ne sëy ba naaw na moom boo wax ne sëy bi daa tas sax waaye sëy bi daa mujj naaw te loolu mën naa te jullit ñi rek ñuy yorante ci seen biir wajur yi nekk fi xale ne fi borom kër ne fi sëy yi mënuñoo dëgër am na lu xew kon waaw ba ci topp nag mooy ki nga xamante ni daa toll ci am kër men na mu war te gisul kenn te kenn su ko defee loolu yi koy waral dana bari wax naa ko ci émission yu bari mooy def-def dana ko bare dana ko waral nit da nga nekk ak nit gën koo jong ma nangam sangam sa wujju yaay xool ni xam ni kii kat bu ma seetaanee mooy njëkk jar sama doom yi mu daal lay dëj. bu dëj la ab xarit dana ko def xarit dana ko def ab xaritam mooy ñeele ci loolu rek daane kii bu ma sàggane nangam moo lay njëkk dem wala nangam te fekk yàlla moo bind yi waaye yemalew leen lu mel ni xeet rab yi dana ko def nga day bañ góor sax far dafi ni ne boo mu ne ah, man kay nag daal fexe ba génn ci rek di tëdd di yeewu noonu di sangu di sedd bi di sàngaay di xëy dox ay it noonu rek nga ne kooku dañ ko war a taxaw moom wala moom mu taxaw boppam muy dem ñu xool lan moo nekk ci moom ci ay gàllankoor ñu mën koo taxaw ba ñaanal ko yàlla mu dañ mu gaaw am mborum kër te bu demee mën faa toog incha allahu taala. aussi dañuy ñëw ci marché yi. marché yi problème yi bëri na marché yaa ngi lakk. Mhm. ñi ñu ngi am ay bagages yu dul jeex. Mhm. bëgg kaa jaay mën na koo jaay. Mhm. kenn gisul. kenn ñëwul fëgg leen. marchandise bi rafet na mi ngi noonu. lan mooy bi ak lan problème bi. xam nga dënn yi dafa yaatuwul. commerçant yi leen yàlla santoon ci commerce ñu bari defu na ko. ñii duñ saraxe ñi duñ dimbali ñii duñ génne asaka. bi ci topp it bépp marché am xeex nga yëg ko nga bañ ko bañ yëg ak xeex déedéet diw daal dama gis naa ne moom li lii nii dem ci moom di jënd daa bari lool moom mooy njëkk jaral waxtu bu jot daal te loolu jaaduwul gis naa ko bi def nangam day wis ñëppay sax moom waaye li ñuy wis nag mooy problème ñëppay def ci barab bi waaye lañ ci def it ndox yi la bu njëkk ndox la woon léegi nekkatul ndox de waaw ndox pilis lay doon waaw ndox pilis waaw su ko defee nag commerçant bi li mu war a def ndax am na ci secret yoo xam ne boo ko defee sa alal du yàqu mukk déedéet am na ci secret yoo xam ne ba ci kaaraange kër am na ci yoo xam boo defee kër lakk mukk yi seytaane du fa mën a yàq dara yëpp noonu amee ci secret place am na ci secret yoo xam ne nag ci jëmmi nit ki lay nekk léeg-léeg day nekk ci place bi mu dox bu ko bàyyee dem feneen nga gis ni place bi tàmbalee dellu ginnaaw mm-hmm. am na ci secret yoo xam ne yit ci biir place bi lañ koy def moom waaye am na parce que ki koy ki jaay moo xëy di woo ko man am naa ci saafara soo nag boo xëy wis ko sox di woo nii boo liggéeyul dara sax boo toogee da nga mos waaw loolu nag ku ma ko wax war nga ko gëm ndax man ëpp na ñaar fukk at ak juróom yoo xam ne kenn gisuma mat ci maçon du soudeur du métal de nangam te lépp lu ma bëgg yàlla def ko mhm. barkalla euh, tey ci euh, comme que yéen bëggoon waxtaan waxtaan la wam jeex mhm. fi ñuy tànkee mooy sa jàngat ci réew mi mhm. ni nga gisee réew mi dina tàkk wala lu tàkk bu tàkkee la ñuy jëriñ bu fekkee jàmm am na la yokk sa jàngat ci réew sama jàngat ci réew mi mooy réew mi réew jàmm la réew mi réew salaam la réew mi réew barke la li fi yàlla def ci ressource ci ressource yoo xam ne mën naa jariñ mboolem ku ne ci réew mi kenn xamul lu mu toll ñun ñëpp mën nañ caa jariñ nag comme ni ko waxoon moom mooy waxtaan moo war a am kilifa yi war nañ cee mën a kenn ku am koo xam ne yow am nga kàddu war nga caa mën a àddu ñu woo nguur gi woo opposant bi ñu fexee nu ñuy daje toog waxtaanee ko ndax bu yàqoo moom ñëpp ko yëg su defaroo yéen ñëpp ko yëg ndax kenn ku nekk ñun muy ci armée bi sa nijaay fa ne sama jarbaat ñu jaayi kee sa papa yi diw wala nangam ñoo ñoo ne ci armée bi su ko fee nag bu fekkee ne xool nañ ba fitna taal ko te Sénégal moom ëpp naa def am réew li tax Macky Sall dossier bii mu war cee wax comme moom moo waxal boppam ni am na dossier yoo xam ni maa fexe kenn doo ci wax dara maa maa ci teg loxo léegi am ñu ne Sénégal tàkk na du ko tàpp ñu ne as ndaw su jigéen soo xam ne amul fanweeri at loolu moom daa gàccele ci suñu réew waaw bu ko defee it justice bi di atti dëgg képp koo xam ne indi nañ la fa ndax it genn genn dund du sax am na fu muy tàmbalee am na fu muy yem su ko defee it li alaaji Abdou Aziz waxoon rek keroog ba Lamine Gueye faatoo mu ne président ana Lamine Gueye tey mu ngi nii yëkkati loxo rek mënatu ko ndax xudratu ak iraada innahu ala kulli shay'in moom ci yàlla képp ci la nekk képp koo xam ne yaa ngi fi di dund képp ñu la mën a war ñu la mën a wër nuñ mën a toll da nga dem bàyyi leen foofu la ñoom ñu dem par kenn kenn bàyyi la fi kenn du fi des su ko nag nga rafetal sa dund rafetal sa net bu la yàlla nga dund école ba nga doon jàngee dàqoo faa jàng nga génn fa nga doon liggéey dàqoo gënoo fa am jom fay ba nga bokk yit gënoo gënoo fa gënoo fa yàlla tànn la ci biir nuyoo jox la jox la lenn ci ay responsabilité muy nga ndax nguur suñu borom lenn la dindi ci nguuram gi jox la ko waaye loolu nag ñu fooye doole yàlla kenn du ko xeexee waaw su ko fee lañ ci war a def mooy di defar ak di jubal ak di dimbalee rek kon su ko defee maa ngi ñaan réew mi suñu borom doole fi jàmm mbooleem doomi Sénégal fu mu nekk ci adduna rek yàlla dafa yàlla fekk defal ko jàmm ak sutura liñ fay sàkku yi suñu borom jàppandal ko bi jaay rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam barkeb Cheikhul Xadim